bu xamoon ne bu ko yóbboon lii la ko yàqee mu bako moo taxaw ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini looy am mu ne taxawus jawaïsa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayra al ilmi wa diini kenn du Cheikhul Xadim nee na foofa la wooyee Gabon ijal rujoo'i ila qawmi saadatana moom waaye lépp bu ngoon a wax mooy maa ngi ñibbi yow yàlla waaye suma cëri ba suma suma sërice bi yàlla nga koy def muy bëreeru Sénégal incontestablement ne Serigne Thiam Cheikhul Khadim baa ngi nii fii lañ ko lëjëlee woon bam naan ida zukirtu dalikal mabita yàlla na ko teg billahi danaa la fay yàlla fayee ko jumaa ji xam ne waxuma la Europe adduna bi amul kii moo tax am indépendance kii moo indi bonheuru Sénégal moo tax sama baay Khalifa ba mu demee ba jaale ji ko magam ja sëñ Touba kenn magu ko maquette la maquette moo njëkk bâtiment bi maquette la moo njëkk bâtiment bi mu jox ko kaamilu alxuraan sama baay sama maam ne ko wayal ma sëñ Touba mu ne ko aataytana ah, bi kitaabin laa nazira lahu arwa galila sadana baada luwaaxi huwa aljalalaani tafsiru limansibikum yow misbaahu ilmin ka dawi subhi lammaahi mu ne ko sa bopp nga joxe yow Cheikhul Khadim yaay alquran li alquran digale cent pour cent am nga ko lam tere kenn séenu la ci xam naa ki gën a am chance mooy président Macky Sall mi daje lii moom laay wax léegi Serigne Mbaye Ndiaye ma ne ko ah président Macky Sall day sama goro la waaye chance bi yàlla may ko seule solution mooy Touba Touba li abdin xadimin ma muridin sadiqin lahumu بخدمة أو بحب أو هديات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جبلاني. ñu ngi jox kàddu gi nag. ah kooku mooy sëñ Arabi Niass. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre internationale.